jëf mbokk internet yu Bour Gueweul TV nuyuwaat nañu leen nin leen ko waxee ñi ngi kër soxna natu kebe ki ngeen jàkkaar lool nii nag di sunu yaay di soxna yaadi bu Lamp Fall TV di fa nekk di fa def liggéey bu am solo tey nag mu bàyyi lépp màggal si ngir jëmmi Serigne Touba ñu laaj ko ginnaaw bi ñu la nuyoo yaay booy nan nga dundee màggal gi ren tey auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim màggal gi ñu ngi ndokkeel képp koo xamante ne rek jiital ci sëñ Muntaxa di ko ndokkeel ak njaboot gi yëpp ñu ngi leen di ndokkeel waaye di ndokkeel nag ku dib jullit rek xanaa mbégte rek lañ ko dundee mbégte rek mbégte gi nga daan dundee rek moom lañ koy dundee ba tey ndax ku tey dëkk dana ñëw leen ngeen sant la ma suñu borom te suñu borom yaakaar naa kuñ ci oo nag dangaa war a daw ndax suñu borom moo dañ koo sant saatu ne moo santee mu yokk nañ sant suñu borom neewul ñëw leen ngeen sant ba ne ñëw leen ngeen sant la ma sama kon dañ koy santale yàlla nag moo waral ñu ñoo santale ko yàlla nag di ñaan yàlla at bu jot mu fekk ñu fi ñu fekk la fii ci kër soxna Mominatou Kébé mu Serigne saaliw sa digganteeg soxna Momy. waaw soxna Momy Kébé nag moom sama xarit la sama sœur la sama lépp la mu bëgg ma man tam ma bëgg ko Serigne Saliou gi nga xamante ne moom lay wax nga soxna moom moom. mu Serigne Saliou rek ngay wax. te moom oote wu benn xew màggal gi rek mooy xewam koo xam ne nag daf laa bëgg di sonn ci yow mm-hmm. te màggal rek mooy bésam bu màggal jotee lu mu xat-xat da nga war a fekk ko fa mu nekk dem fekk ko ànd ak moom bëggal ko comme ni nga xamante ne moom lañ ko bëggee ndax moom màggal gi rek ko ñor ñu koy ñaanal kenn du wax soxna moom te du wax alaaji Ablaay Tage suñu baay bu tedd bu sell boobu mu sëriñ saaliw soxna moom li daje ci moom dafa bari dafa bëgg sëriñ saaliw ba pare am borom këram mu bëgg sëriñ saaliw kon xam nga ne soxna moom dafa jeex ci sëriñ saaliw waaye mu ci nag am kilifa lool nag baax lool nag am taraanga teraanga lool nag nit mën nga am teraanga te doo respecté nit ñi te dafa am teraanga pare boole ci respecté doomu aadama yi fii ñëw nii daf naan ñëw leen ngeen ñëw tey maa leen invité loolu ku mu doyul dara doot la kon dañ koy ñaanal di ñaanal waa kër gi yëpp di ko ñaanal mbas mi nga xam ne moo wàcc ci réew mi am nañ yaakaar ne mbas mi dem na ñu ngi ñaan yàlla sunu borom yàlla na ko yàlla dindi mu ànd ak màggal gi nga xamante ne mooy màggalu Xaadim Rasuul bi mu ànd ak moom te dem ñu leen sant bu baax. ak loolu sax bëggoon naa ñu wax ci tuuti ak fi réew mi toll mbas mi fi réew mi tolloon metti waaye réew mi mais mel na ni bi màggal gi ñëwee yóbbuwaale na lépp man bi ma dikkee Touba ak léegi pour man coronavirus man sentiruma dara daal. noo dundee loolu. waaw loolu loolu am ci yaakaar xam nga lu tax. parce que ku tey dëkk ni mu ko ootee moo tax. dana ñëw leen ngeen sant la ma sama borom fu ñuy sant yàlla amu fa yaakaar ne dara loo xam ne lu lor daf fay nekk. lu lor lu mu daf koy yóbbaale kon dañuy ñaan yàlla ku tey dëkk lii mu ñu ba ñëw ci. lépp li nga xamante ne mooy lor la fi nekk muy mbas bi ñu ñaan yàlla mu dem noonu nga ko gisee noonu la ko nit ñi gisee daanaka boo ñëwee fii yi respecté nañ mesures yi ñaa ngi moytu. Mm-hmm. et tout ça kër yi nga daan gis yenn nañ sax mais nit ñi respecté nañ ko mais terewul tam ñu jël màggal teg ko seen kanam. loolu mooy dëgg. sànq ci ngoon dama ne xiin yu ma gisoon ak ngelaw li affaire bi la doon yóbbu. wallaay yal na ko yóbbu yal na ko yóbbu am nañ ci yaakaar ndax sëñ bi fi mu nekk xoolal ni mu ootee ni mu méttee woon mu oote woote bii mu woote nag ne kaay ngeen sant la dañ koy sant yàlla ba pare nag mu ànd lépp loo xam ne dem lépp luy xéewal ñaan ko mu ñëw nañu osé rek sax dëggu rek na lii kat mën na fee jóge sëñ Tuubaa du amul morom déedéet balay sama sangañ moom wallaay jërëjëf